asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu nekk si biir réew mi ak ñu nekk si bitim réew ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen massawu tamit ci li nga xamante ni moom moo dal tey ci réew mi comme ni ko sunu naataango yëpp waxee te noonu ñu ko waxee noonu la ko réew mi yépp waxe ndax bi mbir mi wàccee ba tey sénégalais yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew yëpp ñoo ngi woote.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 salaamaaleykum euh, yéen ñi nekk ci presse bi au niveau national comme international ñu ngi leen di nuyu di leen sant di tàmbali fàttali ne suñu woote tey bii lu ko waral mooy ñun candidat yi nga xam ne waroon nañu dem tàmbali tey ci guddi suñu campagne électorale bi ñu dégloo le président Macky Sall dañoo décider dañuy def benn front un front de l'opposition pour wax benn kàddu wax benn say ne lii nga xam ne wax na ko ñun mënuñu koo dégg te mënuñu koo nangu ndaxte nag conseil constitutionnel dafa am lu mu tëral ne jaar leen ci yoon bii ak bii ak bii boo leen bëggee nekk kandidaa